toujours des débats d'idées. tu vas être ministre Xam nga de la même façon, de la même façon que tu dis. Mais toi tu fais de la même façon qu'il dit que le ministre euh, euh, euh, Fofana ou les ministres qui ont répondu c'est des ministres yoo xam seen poste la ñu bëgg a défendre. de la même façon tey parce que c'est des répliques subjectives. xam nga de la même façon. sa posture xam nga c'est pourquoi c'est pour jël seen place moo tax doo leen sëlëm. <laughs> Ah, man dama xam ndax bu ma tëddee dinaa yeewu moo tax yéen seen logiciel ak ah, ñun bokkul moo tax ngay sos moo tax ngay créer ah, des choses yoo xam ne non mais attends c'est des mots sos mooy lan reviens dans le débat sos c'est pas méchant on arrête les débats ok donc je termine je continue je dis les hommes politiques de l'opposition ne sont pas au-dessus des lois Ousmane Sonko tout comme ce tout le monde a vu Ousmane Sonko. mu ne xale yi génn leen. ça c'est dépassé est-ce que ñoom intellectuels yi bi ñu gisee état du Sénégal nekk en péril est-ce que parce que état du Sénégal moo ëpp bakkanu Ousmane Sonko. 40 personnes yi dee ñoo ëpp. solo Ousmane Sonko bi nekk prison non pétition bi balaa nga koy commenter kii mm-hmm. liirul pétition bi. ce qu'il mm-hmm. dit c'est diamétralement en déphasage. avec li ñu bind ci pétition bi. Euh, laisse-le terminer. Euh, euh, non je ne termine pas parce que je viens de démarrer. non mais je parlais à Guèye. tout à fait je dis euh, gis nga ñun on est libre Boubacar Boris c'est un papa mais d'accorduma ak moom. dégg nga li sama frère il s'appelle Boris. Bey écoutez très bien d'accorduma sur beaucoup de choses j'ai écouté ses contributions souvent je suis pas d'accord suma papa bi muy àndal damay débat ak moom c'est un intellectuel il n'est pas avec nous je le concède. génne na hôpital bind contribution def ko ci journaux yi ma woo ko nan ngay feebaree génn hôpital di bind contribution va te reposer c'est dire que fii dans les familles on est tous autour d'un bol on n'est pas d'accord dans les idées mais on se respecte Toi, mais, mais c'est pour cela que je respecte professeur Sanoussi c'est pour cela que je respecte Michel je sais que c'est un journaliste indépendant et libre mais Aldour. ce qu'il dit ça Aldour. peut être son opinion donc Néné je dis Sénégal c'est pas à Serigne Diop aujourd'hui de dépeindre le Sénégal comme un pays qui n'est pas démocratique professeur Serigne Diop. mais pourquoi. non non non attendez. Ah, mais nag parce que. mais Jibi yow dañu gisul. Oh, dañ fi gisul ban recul démocratique moo am. non yow bërki démb lañ jaar Nations Unies. yow doo gis dara tu es aveugle. bërki jaar Nations Unies mais su fekkoon dafa am des éléments factuels yoo xam ne Sénégal dañ def ay dérives. le Sénégal n'est plus seul dans le monde on est dans l'ère de la mondialisation tous les pays sont connectés lu xew fii tey dem fële le régime de Macky Sall même suñ ko bëggoon il n'ose pas faire n'importe quoi te ñun ñi nekk ci biir régime boobu tey jii nous sommes des démocrates parce que Sénégal nag suba ñun dinañ fi jóge ñeneen toog fi ñun ñu nekk opposant war a xeex donc on va toujours défendre la liberté des que ce soit de la presse que ce soit des hommes politiques mais un homme politique nekkul koo xam ne dafa am kitus lu ko neex wax lu ko neex def je dis les morts vaut mieux qu'une vie alors Ousmane Sonko dañ koy ñaanal mu gudd fan mais kaso mooy place am. parce que ah, bu ñu dissoudre voilà votre vrai visage parce que bi <laughs> dafa nekkoon parti boo xam ne dafa nekk en marge de la démocratie maintenant su fekkee ne Ousmane Sonko humainement dafa feebar ba nga xam ne yaramam nanguwul prison je pense que am nañu. ay procédure pour que bu ko demander mm-hmm. dans un état de droit mm-hmm. juge d'instruction bi nga xam ne tey mu ngi ci moom diggante juge d'instruction ak procureur humainement bu fekk ne yoon may na loolu médecine bi wax ko mais ñu libéré ko mu dem këram ñu def ko sous contre judiciaire mais maintenant su fekk ne nekkul ci situation sanitaire boobu mais il reste en prison aujourd'hui il est à l'hôpital principal il est en train traité est-ce que nit da ngay nekk sax sa kër ñu yóbbu la hôpital boo feebaree doo fanaan sa kër hôpital ngay fanaan donc Ousmane Sonko aujourd'hui l'État c'est un fils de ce pays il a des droits dans ce pays et jusqu'à un procès où on respecte ses droits Ousmane Sonko est présumé innocent de ce fait si vraiment euh, euh, les conditions sont réunies ci ñi mu nekk ci loxo muy loxo justice sont réunies ñu bàyyi ko ñu bàyyi ko un intellectuel ci loolu ngay dem L'autre actualité. doo suba dépeindre la Sénégal tout noir ce qui n'est pas le cas dans ce pays. mais c'est loolu tamit nga am liberté. <laughs> taxaw nga ne waroo wax li yow nga am liberté boobu pour wax ko nit. léegi nga koy nii moom moo am. bara am man kan mu wax. professeur non non da nga ne. da ne yow professeur Serigne Diop. warul wax lii. warul xam nga am nga liberté pour wax. non waxuma warul wax lii. non donc je me suis mal exprimé. waaw d'accord waroon na wax. comme d'habitude xam ne Sénégal dafa nekk en péril. waaw moom laa loolu moo tax man li moom il a choisi ne waxul lii li wax. yow nga am liberté donc je vois que c'est un partisan. comme vous non c'est pas un problème. y de partisan problème. de partisan. foofu. xam nga yéen seen biir ñiy tudd man tey man ñi ñu doon wax ñoom yore ñooñu mën naa jàpp ne ñoom c'est des c'est des partisans de l'APR mais man su ma koy analyser j'analyse sous l'angle purement intellectuel man xooluma ñi seen fi ñu far mais c'est-à-dire seen raisonnement seen écrit ak lan la ñuy wax lan la ñuy défendre quelqu'un comme par exemple je me suis dit que vraiment yoro cest dire que gis nga intellectuel li ma ciy wax mooy même sa position sociale bu changé sa posture intellectuelle day rester. mais Serigne Saliou mën la reconnaître quand même université bu tàkkee. waaw non mais ci waxul. waxul ci université bu tàkkee. mais am na ñeneen ñu ci wax. mais tey ñu tey Ousmane Sonko mu génn di yuuxu. waaw mais d'accord mais mais université tey na xel quand même. waaw mais moom non je te pose la question waaw alors ñu dem ci professeur aussi. en fait je te pose une question rek. loolu tey na xel wala teyul xel. dama ne am nañu. sañ université ñu wax ci ñu bañ cee wax. seen droit la am na ñoo xam ne nii ba mbir mi amee wax nañ ci xam nga boobu dafa am lu sol lu am sol lu mu wax. intellectuels yi li fi am yëpp ñii ñu ngi ko wax ñi ñoom ils ont choisi de faire une pétition xam man pétition bi sax du ma lu bëri man surtout c' est l' article de Felwine Sarr boobu moo gën a indi mbir yi te ñu ci bëri ils n'ont pas lu de Felwine xam aussi Felwine tant que liiroo li mu bind. pour nga wax ci day nekk problème.

seeni réponse par rapport ak li felu mbir mi. absolument soo ko liiree da nga naan non est-ce que ñii. subjectif ñii liir nañ mbir parce que aussi man man loolu laa jàpp man parce que ça quand Felune pose des problèmes de l'état de droit tu me parles de ay c'est un problème. <laughs> c'est comme de la petite de je ne sais pas quoi. d'accord. très bien non mais. professeur ñu jàll ci beneen actualité ñu jàll ci beneen actualité alors le débat sur les intellectuels est très intéressant mais temps ah, bi tamit dañ on passe à autre toutes les interventions yi am yëpp c'est par rapport à l'article de Felwine kenn moo tontu les universitaires muy Abdou par rapport à l'article de Felwine Sarr moom alors donc c'est cet article qui pose problème <laughs> mais universitaires yi il y a que Abdou Karim Fofana moom moo leen tontu. Mbow tu bavardes en classe. <laughs> ay bu ñu tontu loolu du ñu xëy lendemain. beneen bi également euh, euh, gis nañ ko c'est le leader de PASTEF buy def grève de mais euh, ñu gisoon ne que leaderu yeew yi demoon seeti kii di euh, Serigne Mountakha Mbacké mu am peut-être lu mu leen jox par rapport <coughs> ak euh, Ousmane Sonko peut-être ñaan ko mu mu mu dakkal lii di grève de la faim noonu lañ ko mën gisee parce que tàndarma la ko jox ku joxe tàndarma peut-être mooy lekkal mu nekk benn régulateur en tout cas ces hommes religieux lan la ñu mën a retenir déjà ci ci ci loolu. retenir ci geste bi. seen ay posture ces hommes religieux. waaw mais ces hommes religieux kay seen parce que dañoo dem ba commencé euh, doon wax ni que euh, lu ñu leen dégg peut-être buggoon nañ leen dégg plus tôt ñoom i tamit mu nekk tout le temps euh, ces questions qui reviennent encore ci population bi et face à ces hommes religieux ce na n'avait pas mais nga xam nga aussi nen ne les hommes religieux suñu xalif yi tey ñoom ni ñu mel soo ko buggee xam da ngay xool kan mooy seen njiit kan mooy seen référence c'est le prophète bu fekkee ci waa tuubaa la ñuy wax ak musulman yi. Mhm. te xam nga ñun suñu prophète. waa ji dafa wax mu ne. il était pape et César à la fois Seydina Mohamed loolu moom moo ko am. Mhm. donc da doon le pouvoir spirituel yàlla di wax ak moom muy jottali nit ñi ba pare construire une civilisation une architecture juridique économique et politique. mais kon sëriñ noonu la ñu war a mel parce que ci ay tànkam la war a jaar mais xam nga aussi eh, gis nga nitu yàlla c'est vrai que citoyen simple la entre guillemets mais au-delà de ça ñoom dañuy am ay préoccupations yoo xam ne ñun ni ñu àddina bi këfee nii élection yi këfee ñu ko lépp këfee ñu ko ñoom loolu këfewu leen ko di nga gis nitu yàlla dugg xalwa ay année du ci sax wax c'est pas parce que dañoo désintéressé wu c'est parce que aussi choix yi ñuy nekk la boo jëlee ku mel ni Serigne Saliou Mbacké radiyallahu anhu borom xem ko xalxam mais Serigne Saliou presque kenn doon mosu ko dégg mu wax télé et pourtant ce qui est sûr et certain c'est que am na ay yeneen canaux yoo xam ne ñu ngi fay jaar pour mun a participer man affaire u wu de la fin bu Ousmane Sonko dama ci am ñaari conception rek xam nga bu fekkee sur le plan religieux la ñun ñëpp jàng nañ ni grève de la fin baaxul man tëdd na grève de la faim waaw tëdd naa grève de la faim en 2001 à l'école normale quand j'étais le président de tous les normaliens du Sénégal les inspecteurs et tout maa doon seen président jiite ko ñuy xeex mooy année bi ñu proposé contractualisation ñu tëdd mais papa Cheikh Bamba Dièye ñëw na fa fekk mu ma tëdd. Cheikh Abibulaay Jeey. waaw borom Allahu waahidun mu ne ñu bu ngeen dee da ngeen xaru Mamadou Diop nekkoon maire de Dakar ñëw na fa soutenir ñu ba pare ne jóg. j'ai eu Mame Madior Boye en tant que ministre de la République ñu wax au téléphone mu ne ñu man du ma agir ak kuy def grève de la faim munoo ma jël otage da ngeen di dindi seen grève de la fin bi sinon on négocie pas avec vous mais xam nga aussi. Ousmane Sonko jullit la moom moo la gën a xam li muy risque sur le plan spirituel bu defee grève de la faim xam na ko comme ñëpp ni ko xame mais il a choisi de le faire quand même comme nous tous il nous arrive de faire des choses yoo xam ne ni suñ diine nangu ko ah. par rapport ak xaru bi aussi le débat est partagé parce que am na ñu jàpp ne que euh, ci combat peut-être loolu du xaru. ay ay hommes waaw peut-être waaw mën na am xam nga xam nga diine aussi waaw xam nga diine aussi dafa bëri ay école bëri ay interprétation loolu yëpp mën naa nekk parce que dégg naa démb waa ji wax ko fàttali ko diine may na la ne bul lekk medd baaxul mais am na fooy toll yàlla wax ne la lekkal mais daf ne la mosal bu bul sëggati ci lekk mosal pour que rek nga mën a dund après nga continuer mais xam nga man laa question que je me que je pose. c'est quoi à mooy Ousmane Sonko tey su deful woon grève de la faim est-ce qu'il n'est pas oublié aujourd'hui on ne parle que de la grève de la faim de Ousmane Sonko man je me dis que forme d'instinct de survie politique la instinct de survie par naturel mais politique forme de communication la man jàpp naa ne Ousmane Sonko tey ñu jël ko teg ko loxo ci lu dul yoon man loolu laa jàpp parce que man dama jàpp ne projet politique la li ma jàppe ne ay projet politique la mooy Ousmane Sonko lu mu fi wax am na ñu ko wax te ñu ñun leen le président de la république Macky Sall bi ko tëj tey taxaw na deuxième tour mu ne su Ablaye Wade déclaré que ni moom moo gagné c'est l'insurrection Macky Sall il a dit kenn tëju ko Abdoulaye Wade mais jiñ nañ ko fi ne dafa assassiné un juge est-ce que dëgg la ou non man xamuma. mais kenn kenn dissoudrul PDS kenn tëju ko fi ak leneen ak leneen Macky dem na ba wax ni am na fu muy toll il a demandé à l'armée de sortir wax Wade tëju ko la l'APR kon pour man bu fekkee dafa am une justice à parce que ñaari façon injustice moo am man ci li ma gis mooy nga nekk ci loo xam ne nii yow doñ la ko tere ñu jàpp la loolu da nga nekk ci injustice wala boog man ak yow yëpp ñu yam ci kër gi man ma nekk ci kër gi di def li ma neex yow nga def li may def ñu bàyyi ma jàpp la loolu injuste la justice à double vitesse la de mesures merci beaucoup loolu mooy équité man foofu laa ko jàppee mais man li ma jàpp mooy Ousmane Sonko fi ne il continue son combat d'une autre manière parce que tey ñi nga xam ne nii ñëpp ñoom ñoo ko waroon tey nekk ay nitam ñu jàpp nañ leen ñeneen ñi dégg naa dem ci débat Fatou Abdou bi benn waaye wax ko je crois que c'est le gars de de de Gëm sa bopp moo ko wax Ousmane Sonko est seul aujourd'hui c'est lui qui l'a dit Moussa. Sall non je pense. ton ton ami de Gëm sa bopp c'est un sociologue. Mamadou Sall. Mamadou Sall ñaa il l'a dit que Ousmane Sonko est seul aujourd'hui. Mm-hmm. alors peut-être pour ne pas mourir dans cette solitude pour ne pas être enterré parce que xam nga lan la l'histoire ak la mémoire humaine elles sont très sélectives. amul bayre boo am ci kaw suuf ba amul fu mu histoire di toll on tourne pas la page les peuples tournent toujours les pages guerre mondiale tourné nañ page bi amul nit bu dund ci kaw suuf te duñ tourné sa page fa tolloo pour man forme de résistance la waaye daal li ma ci mën a wax rek mooy li ñu koy ñaanal mooy li ñuy ñaanal bépp jullit eh, yàlla bu mu ci am ay séquelles daal parce que man Ousmane Sonko jàpp naa ne il un discours parce que xaw ma comportement mais amoon na benn discours boo xam ne nii attiré woon na nit ñi te tey bu neexee ak bu naqaree jàpp naa ni buñ doon seddalee nitu Sénégal yi dina ci am loo xam ne nii du ma wax ne mooy ëppale ñëpp de mais kenn du ko ci ëpple kon Ousmane Sonko aussi bu ñu ko tegee loxo nañ xam ni jàpp naa ne ay milliers milliers de Sénégalais lañ teg loxo ba pare lépp lu mu fi def jëfin la woon lépp lum fi wax waxin la woon. lan moo tax ñu seppi ko pour punir ko mooy li ma koy wax rek gis nga buur bu ajee du bugg ko teen. te Ousmane Sonko baatam dafa gudd. waaw loolu Ousmane Sonko baat bi moo gudd. <laughs> gudd li mu xool yëpp duñ bàyyi mu gis ko. si dernier mot euh, euh, professeur boobu rek euh, on a l'impression